ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot mboolem vidéo xam ne nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy rimi an tabibi wa qablu tabibi ku lamba de Sëriñ Bamba jox ko yàlla boo ñàkkati ñëw leen jokkaati alxuraanul karim jar na ko ñëw jokkaati hal taisi ba makari anta jaay anta ganza kulli ladide wa mafari anta jaay jahi anta ganza ya rasulullah المحرم أنت إمامي ورائي إمامي يا رسول يا رسول الله أنت إمامي أنت إمامي ضد باقي إمامي يا رسول الله إني أنت إمامي ضد باقي إمامها يا رسول الله أنت إمامي إمامي إمامي يا رسول الله ورني أنت إمامي أنت فوقي تولى إمامي يبقي أمامي عليك لحين عن جنابي يبقي أمامي ربي لا إله عن كل جري هارو بمدها أمامي عن كل شيء من وجه الله سرمدا خيرا أمين ما إيمان xal law sarmadan xayra ani nixma imaan من وجه حل لا سمد للمخاطر خير لا مني ما إمامي خير لا مني ما إمامي Touba moo la te faatu moo la te yabaane waaji Muusa bul faate waaji Touba moo la te faatu moo la te yalwaane waaji fi Touba nga la bul fàtte fàtte Seexu Bamba ci dunya bola fado wa sakal bul fàtte Seexu Bamba ci dunya Bamba ci dunya bola fado sakal jalam maka sa bongol bongol yàkke ndeem raw na say gët mi ngi lay gis ta daawleen si taan waay di jàkke ndeem raw na say gët mi ngi lay gis daawleen boo ko faate mu faate faate say biir war nga foo foof ko def waxtaane say bir war nga foo foof ko def xalamal yàlla bar mana faskurooni guru guru bi rati alwane اذكروني اذكركم زرق الهوان فلما دلجت فاتبعوني وأحببكم بزرد الحمران فاتبعوني الهوان فقد يومي أحبب قلبي سرد الحمران على جقبان وأولي الأمر منكم بكرة تنقادم الأرض جعلت النسوان منكم بقرير هريت غاد صارت النسوان أبدخوا إلي الوزيلا دمتي يلا أم كركران wasila wasila wasila wasila balanga natiyala kekerake hukuna bamba sangaya bo utusiya samba sanguna bamba sangaya bo utusiya samba sanguna bamba sangaya bo utusiya samba sanguna bamba sangaya bo utusiya samba ku jug taxaw ca kaw màggal Seexuna Bamba yaa ngi nga wax déwén ci barkeb Sëñ Bamba jug leen jukkal Seexuna Bamba lépp moom la jug leen màggal Sëñ Bamba jar na ko jug leen màggal Sëñ Bamba jot nan ba ngir mi ñu xaloon yaa ko déggal nan ba ngir xaloon jàngo demal ga Cheikh Ahmadou yaa fi daa way nan ba yaa donu kambun yaa we dallo ak azane wa yaa donu kambun donu kambun yaa we dallo ba yaa fi daani gaayu baax yi fi daani yaa fi ci gaayu baax gaañoo yaa fi yor borom Tuuba yaa di Maalik Safiyu di Anbal وعملي خوزو يعني زين سلطان nga yimbo ci gaayu baax yi fi nekkoon yaay danay seex Ahmadu Tijaani kon yaa doon sayko Ahmadu Tijaan bala ay doon ngay mbo ci kunti yoo ki xalifa yaa doon Abdul Xaadir Jilaani waa ci kunti yoo ki xalifa yaa doon Abdul Xaadir Jilaani ngay mbo xutbul hamdi li ya daali doon ngay mboor naroo hadik maane ngay mboor ci Mbàkke ak ci Mbusoobe yaa di lamp bi daa ak waa ci Mbàkke sobe sobe yaa di waa ni yàlla ya dul fer wala taataan fu du ca kaw saranaan Jigéen ñi bokk yal na am nga xaas ci soxna si jigéen ñi booyal naanu bay bënin seen sabal jaara maam jaara jërëjëfati maam jaara jërëjëfati maam jaara faral sa Mariama jaara jaara amma maam jaara maam jaara amoro musa amoro musa amoro yaa ko waral sa ko waral karama sabal jaara jërëjëfati maam jaara jërëjëfati maam jaara faral sa doom ya ma jaadu karaama musa jaara maam jaara maam jaara am amoro musa amoro musa amoro ya ko waral sa doom karaama sabal jaara maam jaara jërëjëfati maam jaara jaara maam jaara faral sa doom ya ma jaadu karaama sa amoro sa amoro ya ko waral sa do xulli ji maam jaara jikko yu rafet maam yéeme subaara maam jaara har xulli ji me jikko yu rafet yéeme soxna si yàqal nga waay sëñ bi yàqal nga waay sëñ ñëpp gi jaara yaba su joora di nuyu sëriñ moo taale Gueye Badar uy borom dëkk bi di nuyu suñ sang sunu sëriñ sëriñ Seexuna Gueye Badar di xalifa alxaaji sëriñ Gueye Badar ñi ngi koy siyaar baax di wax ci kàddu daayraxlul Badar ñu ànd di ay donga di ay taalube di ay xarit di ay lépp sëriñ bi dénkanu ab liggéey sëriñ bi dénkanu ab liggéey ñu di ko liggéey ci at mu nekk ci baaxook sëriñ bi ci ak man-manam ci ak yërmandeem ci ak matam ci ak nekk ci li ko war a nekk tax na loolu lépp yomb na ba tax na ñu ngi siyaar képp koo xam si rek bokk na ci daara bi ak bépp jullit bépp taale boo xam ne mi ngi nuy dégg ñu ngi lay siyaare di la sant di la seede liggéey bu noo liggéey sëriñ bi ci loo xam ni lott nañ ci lool nag waaye di nab nabi di góorgóorlu di ànd ak mbokki taalibe yi ak euh, suñ mbokki sëriñ si ñëpp ñu ngi ci biir dinu ci jàppale bu baax a baax a baax rawatina Cheikh Lamine Bara mi xam ni moo ko jiitee sëriñ Bara Gueye Badar ñu topp ci gën cee xeebu lool ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom itam daanaka lépp ñooma ndax liggéey bi moom ñëpp ñër ci biir di sant nag waa daayira yi nga xam ne si ñëw nañ ci pàkk bu tedd bii rawatina daayira Tëngéej ñu ngi leen di siyaare baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm ndax lépp lu fi def de ñun ñu leen ko defal ñun la waran di siyaare daayira géejawaay bu badar ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di leen sant di leen gërëm gërëm goo xam si daal am na fu mu commencé fu yam ndax gis na seen liggéey rëy na lool ci ñun ñi la waran di sant daayira tuubaa badar bu tuubaa Mbàkke ñoom tam mi ngi leen siyaare baax di leen sant di leen gërëm goo xam daal am na commencé waaye amatu yemukaay ak képp koo xam ni yëkkati nga rek ñëw ci barab bi ca màggal ñanta bi saa saam rek tax laa jóg ñu ngi lay sant ndax loolu lépp ñun la waral te ñun ñi ngeen fekkee si daal ñun yaakaar na ni mbégte bu ngeen mën a am rek ñu ñoo leen ko ëpp la ñun waa daayira badar ñi ngi siyaara baax nag di santaat di soññaat suñu bopp di soññaat képp koo xam si rek yaa ngi ci daayira lu badar ndax li de alaaji Sëriñ Géey moo nu ko joxoon santanu ko yëkkati xeerum xéwlum jox nu ni mën naa ne jox lu ëpp lii waaye dama bëgg ngeen góor góorgóorlu doon benn bu ngeen doon ñaar sax dee ko def kon kenn ku nekk ci ñun war naa gën a yokkaat ab pas-pasam ñu gën a bennoo gën a bokk jëf ji ak yéene yi kàttan yi lépp bu boobaa suñu borom leen ci defal tawfeex ba liñ bëgg lépp ñu man ko loolu nag mooy bennoo bi ak góor góorlu gën a yokk ba nga xam si ni ndax bir na ni kat ci wóor na nu sang bi nu ko joxoon El Hadj Serigne Gueye ci atub Serigne Mortalla Gueye Badar bee mooy jëmm ji toogaat tey ñu di ko joxaat rek kon war nañ ko bennoowaat gën a góorlu ci xam ni kat jëf gi des na des na bu baax a baax a baax ndax mbooloo la dootuñu ay benn dootuñu ay ñaar damaa yaakaar na kon jëf gi rek moo des waaye bari na loo xam si ne war nañ ko ci mën a yokk li ñu doyut pas-pas yi dafa des nan gën a góorgóorlu gën cee liggéeyaat bu baax a baax a baax a baax parce que am at la kon war nañ cee def loo bu ñëwee day kawe suñ jort bégtee ci yow di la ñaanal suñ boom dafa la tawfeex ba yéene ji nga am ci liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam yéene ji nga am ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Bamba yéene ji nga am ci liggéeyal sa waajur wa ak sa maam ja Serigne Mor Assa sun borom defal la ci lu kawe sa njort daayira bi kontaan na bu baax sant nan la bu baax a baax a baax dañuy sàkku rek nga ñaanal nu ba yéen a jin bëgg ak lin bëgg a man nga ñaanal nu ban man lu raw loolee ñu ngi lay delloo kàddu yi di siyaar bu baax di la jébbal si suub liggéey di ci sàkku nag ñaan goo xam si nii ab soññee lay doon cant goo xam ni cantuk soññee lay doon ci ñun ak cantuk ñaax waaye da cantu ngërëm goo xam ni ndax liggéey la boo xam ni dañ koy commencé ca përéwul yaakaar na kuy liggéey ca përégoo waroo xaar eh, ak ngërëm kon ngërëm gi na doon cant na doon ak ñaax goo xam dañuy ñaax ñu gën a ñu gën a góorluwaat gën a dolliwaat liggéey bi gën a jàppaat mel lu gën a mel ni lu door a commencé waat daal incha allah kon sang mi ngi lay siyaar baax sant nan baax a baax di la jëbasul liggéey barki Seex Xaadim ci turu sëriñ Cheikhouna Guèye mi nga xam ni moo fi toogee jotaayub alxaaji sëriñ Guèye Badar nuyoo bi nag ak ziyaar bi ak cant yi da koy joyal jëme ko ci ñi nga xam ne ñoo toog ci wetam te ay njabootam di taalibeem di ay dëkkandoom muy waa daayira ahlu badar bu badar ñu ay ndaw nekk ci ay barab yu fasanti ko waaye di ndawi dëkk bi kon boo leen boolee seen alal nu mën a toll rek da koy nangu boole ko ci liggéeyam te itam di leen ñaanal foofu la rek la taxawee génn ngeen ni nga ko waxee rek góorgóorlu gi moom dafa war ndax yéen lépp lu waaye def ci bis bi rek yéen la ko defal lépp lu waay def ci badar itam yéen la ko defal ndax daataa kenn yéen la yeneen dëkk ci dëkk bi te dëkk bi yàgg ngeen dégg ñu wax naan Cheikh Ibrahima Fall nee na ku fi jaar jàll ñun ñu fi dëkk nag kon buñ dellu rek ci ñun la bu fekkee ku fi jaar rek jàll yi mu fi dëkk na kon kon loolu ñu war cee gën a jël bind gën cee góorgóorlu bu baax di sant daayira bi ni nga ko waxee sëriñ Baara Guèye gis nañ taxawaayu sëriñ seex Guèye gis nañu taxawaayu itam sëriñ Fallou Guèye lu bare bari ci daayira bi da koy doxal te lu ci nangoo feeñ waaye sëriñ bi gis na jëf ji te itam mi ngi lay ñaanal bu baax a baax noonu itam lay ñaanalee mbooleem koo xam ni def nga sa jëf ci bis bi sëñ bi daal mi ngi leen di sant tët leen gërëm tët leen ñaanal ñun nag suñuy kàddu yi bopp di ko gën a sant moom Serigne Cheikhouna mii ndax sunu sag la ni ko sëriñ Ndiaga Thiam mi waxee yaakaar naa léegi-léegi nga gis kuy nuyu sa kilifa wala mu jëm sa kilifa ngay xaw a am gàcce na mbaa du ko fekkee nangam ak nangam waaye Serigne naa mii ku ne sagu nga ñëw fekk ko fi ci doxinam ku ne sagu nga mu wax ndax bu waxee itam lu jëriñ rek lay wax ku ne sagu nga itam mu jëf ndax bu jëfee itam jëfi waajuram ak jëfam weesuut boobu benn rek la damay wax ne alay sëñ Géey yi mu nekkoon yëpp yu ko suñ borom ràng la waaye li ko ñoroon mooy dëkk bi ci mujjam dafa wax ne fépp fu ma demat gan laa fa waaye fii laa dëkk te loolu da koo jëmmal doxe ko kon nag loolu nag li alay sëñ Géey waxoon ne nag fu ma demat gan laa fi laa dëkk nag jotaay bi suñu seexnaa bi da koy wane da koy firndeel ndax alay sëñ Géey lépp dañu koo tàmbali yëggalewut dara jumaa ji bi mu koy tàmbali dafa dem ci sëñ moor mi ñu ko mboolem lañu war a liggéey jumaa ji mi ngi nii waaye ndànk-ndànk rek booba xamoon ne jëmm ji moo ko yeggale ak yu baree bari lépp lu mu damay xool barki démb sàkket bi nga xam ne fii la yemoon ci kër gi munu sàkket bi dina dem ba weesu ngi gis gi dañu kër gi dina dem ba weesu ngi gis gi te fi mu ne ni weesu na ko te loolu allah siñ gee ko moom bi moo ko def ngi gis ni lépp lu siñ bi laaloon rek xam na ko te bu ñuy wax ci saayir du jokkook saayir waaye day mel ni jokkook baat la leen lu nekk na ko suñ bëggee noonu la koy defee kon suñ seexu naa ñu ngi leen ñaanal suñ borom guddal sa fan wéral say cër naa li nga xam ne am nga ko ci dëkk bi am ko ci lislaam ak ci ndawi dëkk bi suñ borom mot la ko xeeboo kenn léegi-léegi ndaw rey toog sa nga jàppul suñu seex naa xamul aw waaye bu ko woowee ci turam la jaar te man mii rakkam sa mën naa du ma xam turam waaye loolu day wane ni ñëpp li leen def ak njabootam te nag sëriñ boo xam ne xàmmee wala fii nag daane dinaa la xàmmee àllaaxira nag moom loolu lu ñu war a seetaat la bu fekkee àdduna bi nga xam ni neexee xàmmee nit te àllaaxira ak raj-raj dafa ne sëriñ boon boo ko nuyee fii loo xàmmee ba àllaaxira mu dinaa la xàmmee dana jëfil jën waaye ki ñu àndaloon alay sëriñ gi waxoon na ni sëriñ tubaa ngeen ma toppee sëriñ tubaa ngeen ma jàppee dinaa téye seen loxo ba ci sëriñ tubaa leen sëriñ nii engagement boobu nag moom ci moom laa mos gis mu am ko sëñ tubaa ngeen moo toppi naa téye seen loxo ba leen sëñ tubaa ngi nii te loolu nag soxlay saayiri fii ci àdduna yi da ko wane woon képp ku mu sam yitte wax ko mu toq ci noppam yitte yitte ji saafaraw na ak lu mën a doon am na yitte yoo xam sax du ko du ci ñaan danaa la demal badar rek gis naa koo xam ne ba muy nekkee ndaw ay tànkam dafa lunk woon nii mun nañ ko yóbbu ci suufus badar a alxaaji Serigne Gueye boobu nga toog yàlla na nga fi yàgg loolu te wér ni ko Serigne Moustapha waxe barki dem képp koo xam ne moo njaboot alxaaji Serigne Gueye wala mu ñëw ci dëkk bi rek xam na ni lu fi alxaaji Serigne Gueye na te góoma ne sa nekkoon nii dana dina mel ni mel ndax daa mel ni bi mu fi jógee daa defaat ci njaboot gi pësseef boo xam ne ak dog goon xam nga boo xoolee kër Serigne Abdou Khadir gi xool kër Serigne Moustapha gi day mel ni ci taaxee la gënoon yàlla bu dee bu dee ndax fii waay bi yombut mm-hmm. dëkk bi amul courant amul dara waaye ngis lu ñu am rek ci dëkk bi lañ ko bare xool kër Serigne Cheikhouna gi léeg-léeg tamit man ni mu ko waxee rek nga découragé si sew na toogaay bararam baa noonu waaye fii la war a toog nit ñee son di ko fekk fii di moom muy tedd waaw la la mu am rek la xam bu fekkoon daa topp nit ñi gis nga nit ñi ni ñu tuñu tuñee te duñu am la ñu war a am waaye dafa xam li mu am jàpp ko moo taxit nag ci day noppalu fii noppalu fuñ jëm te ku ko topp toppali nopp ku ko toppi noppalu man loolu lu ma gëm la waaw ndax ala sin ngéema la mu nekkoon lu leer nañ ñi la daana wax naan caaxaanuma fowuma foluwuma waaw la si ngeen xanaa du am ñàkk fulla di fi bàyyi koo xam ne matiwul la mu war a taxawee kon ki ñuy sëñ bi booleel nañ gën a doole suñu positif doole suñuy alal doole suñu ndax lépp positif la rek waaye man amut ni ko sëñ Moussa waxee léegi balaa ngan yi nga xam ne suñ moo suñ moras ñu ngi ko daan defal suñ Mor Moussa du lu ma am am na ngan goo xam ne dafa wax ni mboolem lu nekk ci kër gi tayluñ mën a jaay dañ ko jaay lépp loo xam dañ ko war a mën a tayle nañ ko tayle ab lalam ci bopp daa bokkoon ci lañ tayle 2004 waat ci kër gi xam loolu positif la ak pas-pas ci la ñu rawantee suñ seexu naa mit dëkk dikkam fii pas-pas la balu bare bare nga ko fi fekk te lépp ko fi fekk ñu ko ñaanal baax a baax di leen sant itam tam leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ay tool tàllalal te naan amin yàlla na ko teewaat déwén barkab Seexu Xadim